mooy euh, Fatou Jupiter Touré ñu xam ko ci actrice euh, réalisatrice euh, alors Fatou ñu gis ni que yow tey da ngaa ñëw dooleel collectif bi nga xamante ne moom patient en danger. waa tey ñëw dooleel collectif patient en danger mooy dooleel sama bop parce que ku ci nekk ci ñun patient nga muy man muy sama mbokk muy yow muy ñuy di ñu seetaan donc li lo xamantene ne waru ci xaar kenn la. wa dama ñëw ci lo xamantene ne kenn ëppalewu ma ci ñëw ci lo xamantene amna am yaakaar ne mëna indi

ci ni may màgg dégg naa yu bëri ay histoire ñuy xam ne dañuy wasin ba pare dem xeex ak sage-femme bi moom nekk lu ma jaaxal en tant que xal Euh, muy déjà am euh, ku ma bu baax ne ba muy di accoucher clinique la taamoon di accoucher mais contraction yi fekk ko si yoon bi mu obligé dem ci benn hôpital fait que ku doom wasin juste avant elle euh, sage femme bi ak wax bu ñagas bu kersa ne ko balangay accoucher na nga nettoyer table parce que la sonn qui wara muy lu doy war dal muy lu doy war parce que yow heure bobu yaangi ngi nekk si diggante dund ak dee yaakaar naa am na neneen nu ñu mën a accueillir ku ñëw di wasin am na daaw rek ben benn cas bu daw yaram tamit ben jeune étudiante bu am dom xalé bi juddu déjà ci conditions difficiles euh nek prématuré donc yag crèche en néonatal euh, ba mu waree guen ñu ne bi parce que euh, justement euh, facture hôpital bi <laughs> dépassé woon na ay millions donc bien évidemment amul lu ko fayé euh xalé la mi ngi am dom euh, Nous ci jaaxle bu doy war ñu Nous sommes mo nek euh, ci kër ga ñu Nous di def ket euh, mujj am ben certain montant waye matuko après mairie Dakar mu ji complété somme bi ñu soko ko jox doomam euh, même bulletin de naissance dañ ko confisquer woon mu don lo xamne ne daf ma choqué parce que mosuma woon yaakaar ne yëf yi mën na àgg ba foofu euh, nekkuñu ci structure de santé xam nañ ne yëf yi am na nu muy doxé mais pour man war nañu mën gëna humaniser yëf yi ndax euh, après tout kuy ñëw ci hôpital da ngay indi ko xamantene ne daf ñoom patient lañuy gis waye yow yaa ngi indi ko xamantene dafa sax ci sa xol ñu gën ci bayyi xel. légui suñu dernière question rek moom mooy ci sa wàllum carrière lan moy projet yi. Euh, ñu ngi préparer prochaine édition festival Teranga Movie Awards donc euh, muy festival au cinéma boo xamante ñu ci wo ñep du 29 juin lay doon au 2 juillet euh ko ci ku nek teewee diko préparer euh ak yeneen projet yo xamante bu sottee rek inshallah dinañ ci wax. merci beaucoup jërë ngeen jëf merci.